xam sa démb xam sa tey xam xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix. L'effectif dans cette maison varie entre 150 à 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. Et bien des fois dans cette maison toute une famille, le père, la mère et l'enfant, c'est par une cellule. xam sa démb xam sa tey. ñu waxtaanee dëkku Joseph Ndiaye di gore gore di fàttali njaayum jaam ña njaay mu ñaaw ma tubaab yee jaayoon dëkk boobu nag fa la Barthélemy Durand Valentin juddo premier député Sénégal nekkoon it meeru Ndar Jean-Baptiste Belley mi nga xam ne ci xeexu tubaab ya moo xeexi woon moom ca xeex bu métti ba ca révolution francaise Blaise Diagne njëkk nekk député bu ñuul ci Sénégal 1912 Raymond Dandy nga xam ne acteur le bu ñëpp xam Armand Pierre Engrand maire gore ak bu Dakar ak Moustapha Bayel Sall footballeur bu mag bi kenn dul fàtte. gore mooy dëkk ba nga xam ne ñu siiw ña teg nañ fa seen tànk. gore Gorée bu Boufflers gore gouverneur Julien Smars ba nga xam ne moo doon commandant Médise ba daanu woon ca dex ga. gouverneur Édouard Boué Villomède mi nga xam ne moo sosoon tirailleur sénégalais yi René Caillé ma nga xam ne siiwoon na ndax Tombouctou waaye nag prince bi nga xam ne mooy prince Joinville fàttewu ma Nelson Mandela fàttewu ma Barack Obama fàttewu ma doomi Afrique yu mag yi nga xam ne at mu jot ñu wëlbati teg fa seen tànk gore la ñuy waxtaanee tey mooy fa Houphouët-Boigny ñi jànge fa mu amee diplôme instituteur ci école William Ponty gore fan doon denc doomu buur ya di leen fa jàngale gore nag fa la Jean Paul II jaaroon fa la tegoon tànkam ca 1992 di tukki bu kenn dul fàtte. gore nag bu nu fàtte ne kër gu màgg fa fala ne fa nga xam ne signaar bii di Anna Colas Pépin fa la dëkkoon di jarbaatu Anne Pépin ñu xam ko ci àdduna bépp ci turu maison des esclaves maanaam këru jaam yi. bu nu fàtte ne foofa ca gore am na ñoo xam ne jàpp nan ne jaam yi fa génne ci at mii di 1726 ak 1755 juróomi téeméer la woon at mu ne muy la ëpp fukki million ak ñaar waaye nag 1761 ba 1848 bi njaam di jeex bu leen fàtte ne at mu jot la fa génne buñ ko xaymaa ëpp na fukki junneeg juróom ak lu topp donte am na gëstukat yu naan ni yées na loolu waaye li mën a jàpp mooy benn jaam bu ne ëpp na kon ay millions yi jaam kenn waxi ko gore lu ñaaw la woon ñetti téeméeri at ñu jël ay nit ñu ñuul ci Afrique di leen jàpp di leen jaayi jaam def leen ci ay bateau yóbbu leen di leen jaayi Amérique di leen jaay Guyane di jaay jaayi Cuba di leen jaayi Saint-Domingue di leen jaayi Martinique di leen jaayi Guadeloupe di leen jaayi Jamaïque di leen jaayi Brésil seddale ndey ak baay seddale doom ak maam ku ne ñu yëpp peese jaay Espagne ko doon def France ko doon def Angleterre ko doon def Hollande ko doon def. bu ñu fàtte nag ne bëri na barab yu ñu doon jaayee ay jaam yu ñu doon yabee ay jaam waaye nag gore ci gën a siiw ci Afrique occidentale gii ndax Gorée dafa am lu fa am lu amul woon fenn. Gorée soriwut Dakar te buñ koy natt mi ngi yem ci daanaka ñaar fukki hectare yaatuwaayam ci ay ñetti kilomètres lay toll. ña dëkk nag ñoom biir lañ ko tuddee ndax nim nuroog biiru nit. waaye portugais yi bi ñëwee Ilha da Palmas lañ ko tuddee woon hollandais yi nag ñoom ñoo ko tuddee woon Goodread maanaam radd bu sedd ba wala radd bu neex ba foofa nag la turu gore jóge ci li ñu mag ñi nettali fi Gorée nekk nag moo tax bi nu àggee ci quinzième siècle di xar nu fukk ak juróom tubaab yi bëgg ko di xeex ngir ku ne jël ko portugais yi booba ñu ngi topp géeju Afrique yi di wut lu am di jaay njaayam jaam di ko jaay ci penc 1444 ñu ne nag dañuy jël ndar gi di île bii di gore def ko sunu wéeruwaay ca lañ tabaxee foofa eglise daal di fay def ab armeel waaye xarnu fukk ak juróom-benn bi mu dooree nga xam ne portugais amatul xaalis ndax Espagne noot na ko ca la hollandais yi ñëw ñoom it ne dañuy ñëw ci Afrique soowu jant toog gore ñoo amoon nag benn compagnie bu mag bu tuddoon compagnie néerlandaise des Indes occidentales moom moo jëndoon gore daal di fay tabax nag barabu xeexu buntu ñu tuddee fort ak benn magasin boo xam ne ma ngi ko tegoon ca kaw jànj ba. waaye terewut ba léegi yeneen tubaab yi ñoom bëgg gore rek portugais yi ñëwaat songu Gorée daal di koy nanguwaat français yi ñëw dal ci seen kaw jël ko anglais yi dalaat seen kaw nanguwaat gore kër googu nag di compagnie néerlandaise des Indes occidentales. saa yu ne rek doon na fexe ba jëlaat gore comptoir am ba mu fa amoon nag téye na ko ba 1657 ndax at mooma ca la gore daanu ci loxoy tubaab yi tubaab yi nag bi ñëwee danoo tabaxaat ñoom it seeni barabu xeexu ñu tuddee ko ay fort ginnaaw at yu bëri yoo xam ne xeex nañ ko France ak Angleterre am nag traité bu nu signé Paris 1663 ginnaaw juróom-ñaari ati xeex looloo tax nag Gorée des ci loxoy tubaab yi 1777 feebaru njàmbataan tax waa Gorée ñëpp daw. anglais yi xool ne nit ñi bëreetunu fa ñu ñëwaat toog biir Gorée 1779 français yi nag ña ngi fa ñëwaat 1783 ci traité buñu tuddee traité de Versailles waaye nag xeex yi jeexul foofu de gis ngeen 1800 ay bateau yi anglais dañoo ñëw dal ci kaw il gore daal di koy nag jëlaat 1804 ñeenti at ci gannaaw. ca la yi ñëwaat tubaab yi ñoom jëlaat gore ci at mooma waaye bañ ko jëlee dañ ko ñàkkaat 1817 lañ dellusiwaat fekk Angleterre booba bàyyi na njaayum njaam tubaab yi nag daal di jël Gorée 1817 ba bi senegal di moom boppam. kon mbokk yi bu nu xoolee ne ci li fa tubaab yi ñëw yépp ba bi njaayum njaam di jeex 1848 Gorée njaayum jaam kenn ëppaliwu ko ci. njaayum jaam moomu nag la koy mandargaal mooy kër gii ñu tuddee maison des esclaves di kërub jaam yi nga xam ne fukkeelu xarnu ak juróom-ñett 18e siècle 1783 lañ ko fa tabax muy tubaab yi. kër googu bu nu fàtte ne tubaab yi ko moomoon moomoon jaam yi dañoo dëkkoon ci kaw kaso yi naañ tëj jaam yi ne woon ci suuf. li koy firndeel nag mooy kër gi nga xam ne ma nga fa woon te bunt bi ñu tuddee ko bunt tukki boo dul dellusi bunt booba nag ay millions yi millions yi doomu nit ku ñuul fa lañ jógee dem ñu jàpp leen di jaam waaye bu nuy waxtaanee Gorée dañuy fàttali ne 1857 bi Dakar soso nga xam ne boroom tur yu mag yi ak si ñaari ànd nan ci la Gorée ñàkk dooleem 1872 administration coloniale française defar ñaari commune muy Ndar ak gore mu ñaari communes yu njëkk ci Afrique soowu jant waaye ban demee ba ci biir nga xam ne dakaar sax ci gore la bokkoon danoo dëpp lépp 1887 ñu jël Dakar génne ko Gorée wàcc gore nag mu doon île bu ndaw bi kon nañ jàpp ne Gorée 1996 ba 2002 Urbain Alexandre jaañ moo doon maire ba ñu mujj ko def maire honoraire waaye nag 2002 ba léegi benn maire la am mooy Augustin Senghor moom moo jiite lii di Union Sportive de gore jiite it Fédération senegal bu football. kon ñu jàpp ne Gorée 1944 lañ ko def site historique France ko ko defoon booba moomagul suñu bopp ñu jàpp ne gore bi nu moomee suñu bopp caada ak aada ak mbatit dañ ko fa doxal loolu moo tax. bi ñuy def premier festival mondial des arts nègres 1966 ñu yeesalaat Gorée amoon fa nag po mu rëy mun fa tëggoon muy son et lumière buñ tuddee woon féerie de Gorée doon nettali taarixu Gorée ak taarixu Sénégal. 1975 lañ jël Gorée boole ko ci monument historique yu Sénégal yi 1978 bokk ci fukk ak ñaari. barab yi nga xam ne bind nañ leen ci patrimoine mondialu UNESCO loolu moo tax ci njiitu UNESCO mu am timbre boo xam ne defoon nañ ko ca France tuddee ko patrimoine mondial ci programme boobu def ca gore 1980 poste Sénégal it 1985 1994 ak 1998 génneewoon nañ ay timbre yoo xam ne leen ca bëggoon mooy ñu jàppale gore ba gore du suux ñu war a jàpp nag ne 1990 ba léegi Gorée ñu ngi koy yeesalaat ci ndimbalu UNESCO. ak ay nit ñoo xam ne dañoo bëgg rek àdduna ak cosaan jël seen alal di ko ca def gore am na ñaari màndarga benn bi mooy musée yoo xam ne ña nga bokk IFAN musée bu njëkk bi di musée historique gu Sénégal musée boobu nag taarixu senegal ca njëlbeenu réew mi ba ca indépendance ak bu gore ma nga ku dem fekk ko fa am na beneen musée boo xam ne géej lañ ko jagleel mu am juróom-ñaar téeméeri juróom fukki xeeti jën ak juróom-ñaar téeméeri xeeti dundaafoon yu ne ci biir géej gi yoo xam ne ku dem gis leen muy wane nag Dakar ak nim mel kon mbokk yi xam sa démb xam sa tey ana gore gore musée de la femme Henriette Bathily fale ne woon laataa muy fay jógee ñëw Dakar 2014 Gorée nag am na festival yu mag yu fa am yu mel ne diaspora waaye bu ñuy wax Gorée njaayam jaam a tax ay million et millions yi jaam ay millions et millions yi jaam ku jàpp jaam rey nga nit na ko tubaab bi nangu li gën a yées ci àdduna bi lu nit ku def mooy njaayum jaam te gore di màndarga bi xam démb xam sa tey xam sa sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation massan Gueye assistant abu Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut